bu dee affaire euh, un certain Moussa Moussa Diop la je crois moom mooy DG wu Dakar dem dikk xawma Dakar dem toog fa mais dafa am ay propos yoo xam ne nit ku responsable du ko wax. Euh, ku mel noonu waruñ ko dénk sax ñeenti bornoy kër waxumala di ko dénk société nationale parce que tamit dafa am ay wax yoo xam ne euh, warul jóge ci responsable en fait. parce que li muy wax naan autoroute bi dañ ko jël yóbbu ko feneen man du ma tudd foofu di leen jéem a tuutal wala dara ba pare moom xamul ne autoroute bi li Touba dugal ci Sénégal suñu ko delloo woon Touba am na lépp autoroute combien de milliards la ñuy dugal ci màggal Touba beneen bi ñun amuñu problème autoroute dans les années quarante cinquante nangam la suñu Mourou Moussa indi raay quarante kilomètres yoo xam ne nun murid yi ñoo ko defar sunu ay maam loolu moo importance autoroute ba par autoroute bi xaalisu Sénégal la du xaalisu président Macky Sall du xaalisu parti APR président Macky Sall avant muy nekk président 2012 kenn laaju ko bilan ci Sénégal parce kon lii li mu defar sunu xaalis la sunu tur la ko lebe lebu ko ci turu keneen donc nañu bàyyi di jël ay choses yoo xam di ko polémiquer ñun amuñu problème autoroute ñun dund nañ quarante quelque temps ñi ngi jaar ci yoon bi dem Touba bàyyi woon ñu ngi jumaay njaarim sax mënu dàqal fi mu ne nii boo déparé fii julli dab la ci yoon bi fooy man xombal laa doon jullee wala jeneen jàkka mais c'est obligé ma léegi bala nga déparé nga julli wala ba eggee nga julli loolu gën a luñu bàyyi affaire autoroute Touba li état bi yo ko état bi Sénégal yoleel su ko ko delloo woon ñun am nañ lépp autoroute parce que ñun état bu Sénégal moo ñu yoreel mais ñun yoreluñ ko ak gis nañ fi ay jumaa yoo xam ne état koy fay gis nañ fi ay imam yoo xam ne état koy fay gis nañ fi ay xalifa généro état di leen fay par weer te normalement marabu bu ñu amoon statut maraboutique dañ leen war a fay soo demee Mali loolu moo fa am nga dem Nigéria pareil nga dem ci yeneen réew ci àddina loolu fa am ñun amuñu problème liñ du d'accord nag nga jàkkaarloo ñu ne mbéj ñu nañu baal ma bokkut ak nga dox ba fakastalu nañu gaañ ñi nañu baal ma Moussa Diop dañoo mbéj dañuy fayu